asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu moo Modou Dieng tubaa 28 mi nam deg ko mbokk yi <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfe Serigne Touba. mbokk yi tey sant gi nga xam ne dañ koy sant yàlla ak julli ci yonentam bu tedd bi di ñaanal sëriñ tubaa seex muhammadul muntaxa mbàkke mu yàgg fi lool te ñu yàgg ko fee fekk usmaan Sonko wax dëgg yàlla tey dañoo am mbégte mbégte mu rëy leen am bis bi deux mille vingt trois deux mille vingt deux daf ko dundandoog ñun dund gu sell dem kër sëñ Cheikh Saliou kër sëñ Ahmadou Mokhtar siyaare kilifa yépp kër sëñ fàll sony bu dem kër sëñ seexam sëñ Abdu Xaadir dund ko dund koo xamante ni ànd ak ñun ñetti fan yépp 2023 Macky Sall dugal ko ci kaso bi màggal gi heure bii ñëw ñi doon ñëw ci délégation dana wax sax ne Ousmane Sonko bu nu waxul mu lekk ba muy tuut mën naa ñàkk bakkanam sëriñ bi jël tàndarma ne ne bu ñu demee nañ ko ko jox ñu dem ngir war ko ko jox Macky Sall lànk ngir joxunu ko ngir ñu bañ ko ko jox ba deux mille vingt trois boobu ci la soxna maam Bousso di soxna maam jaara moom sëriñ Abdou Lahad nekk kër sëñ Fallou sooy bu jox ko aw nag ak ambaloog lépp ne Ousmane Songare du màggal si Touba waaye màggalam dana ko fekk fa mu nekk loola mu doon te lool te ren jii mu ñëw ndeysaan nekk premier ministre fii ci Sénégal tey togg xalifa bi moo tax àdduna kenn xamul lu mu doon toog xalifa bi daan bëgg a gis ñëw ci dëkk bi wala protocole yi waaye kenn kenn mënul fex te ku nekk xam ne ne Ousmane Sonko digganteem ak tuubaa waxuma la mu téye sëriñ Touba ak ñooñu sëñ Touba waaye dafa téye waa dëkk bi waa dëkk bi téyel ko seen bopp amee moo tax damay wax ne képp kuy politique ah ne tuubaa soxlawuma la <laughs> doxal nu dem wala nga ne Touba bu du bu dul mën bu dul euh, Touba man mën na maa dem sans Touba xam nga loolu la Macky Sall doon damoo ay Moustapha Diakhaté ak ñëpp naa Macky Sall def na fii kii gañe na fi nangami yoon te àndut ak waa Touba waaye gañe bii jomaay gañe ànd ak waa Touba de bu ko gën a leer gën koo fés amul ci victoire victoire bu nit di am ci politique wala muy victoire booy am bu jomaay bi moo gën a neex te waa Touba dañ cee takk rip rip rip Ousmane Sonko ci kanamu sëriñ bi nee na ko tuubaa dañ cee xeex. moo tax jomaay na procès bi ak li mu nar a def ci mandaam bi li ci gën a nekk priorité gën cee fés mooy taxawu Touba rawatina ndoxu Touba Ousmane Sonko dikk feddali ko ne jomaay waxoon na ko waaye man mi premier ministre dina ko waxaat li nu bëgg mooy bu nu doxee ay at yu néew luy taataa wala luy ndox wala luy ndox mu naqari wala luy ndox muy naan ndox moom loolu moom dina fi jeex tàkk ndax Touba danoo jàpp ci xeex bi xam nga ñoom jàppunu ci pour benn intérêt dañ cee jàpp rek ngir ngëm-ngëm jàpp ci ak Pastef bi Ousmane ngay woote ñun Pastef nekk suñu deret waaw ñun bu ñuy wax sax wala nga dégg nu wala nga gis murid yi sax xam nga xoolal safar ni mu neexee xoolal ni mu neexee loo xamante ni ñoom day li neex ci ñoom jëmmi bis bi waaye togg di joxe di joxe berne moo neex loolu bariwul ñu ko man de sëñ bi di joxe paas ñuy ñëw bu ñuy dellu nga jox leen paas. sëñ bi bu ñëwee nga teral leen ci sa lal fa gën a baax sa néeg nga wàcc ko jox leen la gën a neex sa togg nga jox leen ko di waxtaan ak ñoom bu nuy dem nga jox leen paas tt <laughs> Touba sëñ bi kii la moo tax sëñ bi kuy politique desal ginnaaw Touba ah sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko suñ borom yàggal moo tax àdduna lu jar di teey la lu jar di di def ay calcul yu bare bare bare bare bare heure bii daaw wallaay ndeysaan nekk ca kaso ba nga xam ne prison yi ña des dakaar daanaka Ousmane Sonko mën nañ ne eh, bu doon wax personnalité yi des dakaar moom lañ cey tudd ñi màggal si wut ren tey mu doon première ministre otom daw ba ci buntu kër Sëñ muntaxaay ci biir bëti wetu bunti baa bi mu wàcc ñu dugg ñu bari escorté ko ñe ko téye woon ca kaso ba ne ko doo màggale ren <laughs> Macky Sall nee na doo màggali ñooñu tey ñoo dikk di ko di ko di ko ubbil port yi <laughs> waaw mais amee mais amee porte aport porte ba mu ne jàmb loxo sëñ sëñ sëñ Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo tax daal àdduna ku jar di tey la lu jar di tey la waaye nag dañuy wan rek euh, jomaay gis nga ko ñetti yoon ñëw na ko Touba ñetti yoon bi mu toogee xalifa général bi mu toogee euh, kii bi mu toogee li nga xam ne moo di kii moom moom mu màggal si wut woon korite wut këram ci biir koor gi lañ ko jàpp tabaski wut këram ren ji muy président poto yi ba Macky Sall daan toog tey foofu lañ ko toog muy wax wax ju gën jëw Macky sàll di wax fa soxna Marème fay daan toog soxna Jomaay di fa toog <laughs> gën a yaru fuuf soxna Marème Faye <laughs> Jomaay gën a dégg gën a am diine gën a xam yoon wi gën a am respect discours bi mu fi def benn diskuur bu nu mel sëñ bi yar bi nekk ci moom ak discipline bi ak jom ji ak jombulu ji mësul ne i eh, <laughs> lay Macky Sall nguur waxoon na ñëpp daanal la ko wax yow lii la dal ñëpp la ko daan ne la Macky nguur yàllaa koy joxe nguur du yaa ko moom yow ba nga waxee Ousmane Sonko ne ko li fi amoon dootu fi amaat di màttu ak diseur maanaam man du ma def troisième mandat waaye nag yëpp dinaa disposition yëpp lépp lu nguur laaj lépp loo xamante ni loi bi àtte na ko dinaa ko appliquer tey ana li nga mën a appliquer tey Ousmane Sonko moo yore loolu Jomaay moo yore loolu fa nga daan toog di wax léegi ñoo fay toog tey boo dikkoon Ousmane Sonko di dikk dañ lay wàcce tëli bi boo doon dikk Jomaay di dikk dañ lay wàcce tëli bi moo tax nguur ku ko yor del xalaat maanaam del xalaat kii ba wérdit ba maanaam buy jeex maanaam pouvoir bi bu mu la topp moo tax Ousmane Sonko ne eh, eh, ñun démb ci conférence am bi mu doon def ñun bu ñu xoolee xale yi faatu nga xam ne ay fanweeri at kenn amagu ko ci te ñoom ñoo tax pouvoir ñoo tax eh, réew mi changé man li nguur am ci ay palmarès maanaam mooy li am ci ay pouvoir nee na loolu sax du ko yëg ndax xale yi faatu. moo tax képp ku topp ci ginnaaw Pastef del xool xale yi bul bàyyee xel ñii ñu naa ay ministre noog ay gouverneur ak ay chef dëkk ay nangam ak ay premier ministre directeur ak naa bul bàyyee xel ñooñu bàyyil xel ñi ci suuf te ñooñu ñoo xeex xeex bi dee leen bàyyi xel ñooñu bu nu bàyyi xel ay pouvoir bu nu bàyyi xel xaalis bu nu bàyyi xel ay victoire bu nu bàyyi xel ay nguur waaye nañ bàyyi xel ñi nekk ci biir suuf te procès bi tax leen a dee ñi ñàkk ay cër ñi nga xam ne tey ñi ngi taw kaw suuf mais amatulun suuf njariñ daanaka seeni cër làgg na ñeneen seeni bët ñeneen seeni nàngam waaye nag ànd ak loolu lépp yàlla soppi na jamono ku gis senegal nii muy doxe xam ne soppeeku na moo tax bis bi te àdduna dafa jar di kii xool leen bis suñ tubaab bi nii mu mel lu ko may xeex ak bañ xeex ngir bañ ku not diine xeex ngir bañ ku suufeel diine xeex ngir ku bañ ku salfaañe diine xeex ngir ndoone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon ne al ulama warasatul anbiya moo tax kuy xeex ngir yàlla yàlla dana am benn bis mu fay la ko ku xeex benn bis yàlla dana tax am mu fay la ko tey ji Ousmane Sonko lu mu dajoon fàtte na ko tey te nit gor dëgg la Ousmane Sonko gor dëgg la jiital nit fakastaloo ko topp ci ginnaawam ah moo tax sëñ bi na yéene yi rafet xol yi di sell ñu yéenante jàmm xiiroo ya ŋaay yépp na jeex nanu xool ñi ci biir suuf ku bëgg a xiiroo wala nga bëgg dem pouvoir wala nga bëgg a nguuru xoolal ñi nekk ci biir suuf ci bàmmeel wala nga xool seen yaay yanu bàyyi wala nga xool seen jabar yanu bàyyi wala nga xool seen jirim yanu bàyyi alhamdulilahi rabbil alamin moo tax sëñ tubaa daal li mu woote mooy fors sant leen ma yàlla force force dëgg dëgg dëgg mooy sant yàlla loolu ku dul jullit mënoo ko force ak muñ loolu jullit aqan moo ko man moo tax Ousmane yàlla na leen yàlla sàmm songo <laughs> jomaay yàlla yàlla la ceet ndeysaan soxna si def lu rafet soxna Marie Conté fay la yaakaar naa dem seeti soxna Bali ndeysaan toog foo ndeysaan xel yépp nekk ci Marème sàll rek <laughs> Marème Faye Sall mu toog yar boo xamante ni bu doon Marème ma ngi fa nekk di reeg di kii yeeg <laughs> Marème sax baax na ni waaye nag dëgg dëgg nag